alimaamu Shahraani ca al al nan waaye al alxudariya ab téere mu bind ne si na xudar la gis moom di ko leeral ne ko ndox mi bu dee dafa boy dara tënk ko dafa am ruu raw xaan ruu gu ci nekk koo xam ne boo ko jàppee day dugg ci ci cër yi ak si ci xol bi xol bay centre bi daal koy ubbi fexal ko nga sawaru julli bu dee ndox benn dafa tënku amatul ruu maanaam léegi dundul bay dundal kon lu am solo kon la ndox mi su soon mag ñëpp ko daa am satala am satala goo xam ne moom dañ koy fonk xam lu ci nekk xam nangam kon léegi yow julli ngoog julli mu tëdd moomu julli mooy lan salaa salaam dafa romb ci pays yi yàlla yi ànd ak seen jibril fu mu romb gis na malaaka moo xam ne dafa taxaw jodd rek jodd kooku mooy ak jaamam di wéy nag di wéy duudu sëgg moom am ku rukoo di wéy am koo xam ne dafa toog taaya di wéy am ko sujjóot di wéy mu xool ko nag bik lool ci biir yàlla ñii seen jaamu gi ne dafa tedd su suñu boobam ne ko jaamu googu jaamu yooyu nga doon romb dëxëñal naa la ko ci julli gi dañuy taxaw jonno mel ne malaaka ya rukoo mel ne malaaka ya sujjóot mel ne malaaka ya toog taaya mel ne malaaka ya attahiyaatu ya nu yëpp salaay salaam ak borom bi ñu defal ñu ko ci bu njataayee laa ilaaha illallaah xalu nga xam ne nañ kon yow am ne am nañ kon mboole séenu jaamu jaamu malaaka yi yàlla dajale nañ ko ci lenn mu julli ba tax julli mu gën a foor ndax salaa salaam nee na ku bàyyi julli da ngaa mabbu diine nee na diine mooy mooy nee na kenn li téye mbaar mi mooy julli koo ko bàyyi da ngaa mabbu mbaar mi foofu nag seen manaal sama maam Moussa am ganu daanukat boo xamante ne du julli day yendoog moom di waxtaan ba kooka dem sama bàyyi nee na mu daal di mel ne day fay waxtu woo ndax ndax suñu borom moo xoromu am na xejjam boo xam ne lu mu def noonu la boo tax daa wax njëriñ naan kat tubaab njëriñ roy ak romb fi moo fi am koo gis te man koo roy royal boo ko mënta roy nga romb ko man nag ni may def man ba ba nekkee njëriñ du ma toog ci koo koo mënta roy parce que sama xol di am na ñekk ñekk déedéet koo mënta roy damay romb yi du ma jaxasoog yow fi toll nii ku dul julli sëñ bi nee na ku dul julli bu dugalee loxoom ci aw ñam maanaam wéy dafa am dangar ci génne day wol xol ku dul julli nee na araam na ree ci kanamam ku dul julli araam naa takk doomam araam naa may doo may soxna sut bi ko moom moo ko wax ma nga ca mañ ma ko nuru moo ko wax léegi nag kooku moom sëñ ba ko wax ñoom seen ci waaye boo gisee koo xam ne du julli yow si yoon ni ko ci yow tilka ummatun xada xalat laa ma kasabat wala ku ma ma kasabtum wala soo na am akano yaxamalu soo yónni ko ci yow maanaam ñoom bu ëllëgee dañ naan diw mi daal julli naka def nag mu mu lay yow mi daal julli nag nga lay yéen a xam ak seen ak sa borom rek bu taxaw nag iblis la ko lor ba mu xoolee ci lawhul mahfuz ne yàlla dana digle ñu suyu jóotal ab jaam dana am ku bañ yàlla digle ni suy suyati leen Adama moom mu taxaw nag di xool ba xam ku ku kuy bañ ku mu doon léegi nag moom xam nga taxa su jot leen mu ne xam na ay ku ku ku su jot bañ su jot for mu xool ñëpp su jot bu baax si moom mu daal di sigg ñëw lànk. bisimilah moo tax ndigal bu bu jibee gaaw koo def bala laa seytaane nax ndigal bu jibee gaaw koo def da da ngay da ngay daal di noppaloo seytaane du ko mën a boroxloo kon kon jullee ngoog muy guddi gu tedd gii nga xam ne julli kon mooy sëriñ cëb salaam bi moom la ñu andil suñu fàllu nee na moo mooy liggéey bi ku fexe ba julli boo xëyee julli suba suba takkusaan timis suñu fàllu nee na yow def nga liggéey bi yow léegi léegi feex na yow léegi am jeex na lañ la digloon def nga ko yow su koor gi ñëwee nga woor fekk nag am nga tawhiid nag fekk nag wiital nga yàlla allahu akbar ji nga doon wax ca kaparu arbal ba mooy yàlla yaa yaa gën a foor lépp fi man yitte yéeg lépp yaa ko moo tax banaa ko maa ngi fi yow allahu akbar loolu ni ma koy waxee mu dëgëral ko damaa déggoo ñu ne sëñ bi su ko masaa di wax day mel ne gaynde guy bëmb dënd bi di day riir bu ne allahu akbar ca dënd bi day riir ma ne oh daa daa xam lu mu taal su su masaa nekk ci kër gu mag di ne allahu akbar ña nekk kër Cheikh Ibrahima dañ koy dégg allahu akbar da nga démb bi ma sumee mbaxana bi ñu nodd benn daal bi nga naan morom ji di ma joxoñ li ma ci jublu mooy màggal yàlla maanaam yàlla da wax ko nu ma koy màggale li ma ko bëgg a jox ci ci ci ci ci màggal daal ëmmu ko bu ñu ne allahu akbar ma ne ah ko kon yàlla kon moo gën a màgg kon sewuntaa se sewuntaa da muy suñu mbaxane mi ah waaye kon ko yàlla noonu wari kon suñu mbaxane mi waaw ah yàlla day ah man de xaw ma nu may def allahu akbar ji di muy firi yaa gën a màggal lépp kon teraanga ku ma koy tokkoon yaa ci gën a yey kon yow waaye nag buñ nappee bay julli mosal ma xanaa mi ndax sëñ sëñ sëñ Abdul Xadim Diop moom si sëñ Tamba Aminte moom ma ko wax ne sëñ sëñ sëñ Abdul Xadir dañoo ñëw julli si ci julli si suba mu ne kuy wëti ci jàkka ji na sol mbaxana mbaa kaala nee na ay mag daal di wax ne bay si Njaay Gédé ñëw ñëw ci témisièr chef du jom nee na ma man ak Baye Mat Jaañ nuñ am nañ taw feexee sol ma xam nag kaala sëñ bi duggee jàkka ñu xool si seen leen daal di bég salaamaaleykum xool daal di xool leen gis na ñoo ñoom képp a def ndigal li ñee na mag ñi daal ne daal ne Baye si Njaay Gédé nee na lu mu doon ñu ne ko ah sëñ bi de dañoo digal loo xam ne daa métti lool man lu mu doon oxee ma ko wax ko mu ne kon nu ma leen koy wax bi mu sëñ bi njëriñ dañoo wax ne da ngay digal ndigalu métti mu ne mu ne ko lu moom mu ne ko xanaa dañ ne mbaxana mu ne ko mbaka mbaka la da daal di wuy moom oh taxawul toog naa ci sëñ Moustapha Ndiagne ñu boo ji suñu mbaxana mi dugg ci jàkka ji bu ñu lekk xamee maa ngi maa ngi sës ci moom mooy solaat mbaxana mi biñ sëlmalee ma sumi ko maa ngi ci ndigal maa ngi warmal kii waaye gannaaw sëñ sëñ sëñ Abdou Diop sëñ Abdou Khadim Diop sëñ sama amite nee na ma sëñ sëñ Abdou Khadim ko digle na nga sol mbaxana bàkkaar ma daal sol mbaxana mi ndigal ndax damaa xam ne kii wax mooy sëñ Abdou Khadir kooku moom ilimaan la man boo ëllëgee man yàlla kat moo moo ko waxoon de sëñ Abdou Diop mii moo wax ne sëñ Abdou Khadir ko wax ñoom bu ñu dindi ñoom ñooy xam man sax ñu ci man ndax sëñ Abdou Khadir ilimaan la sallallahu alayhi wa sallam dañ dañ koo def ngir ñu roy ko topp ci ginnaaw lu mu def ka def ko kon julli ko kon julli ko ñu kon julli lu tedd la lu tedd la suñu borom da ko fonk fonk lool faatiha ji gën a tedd moo ci nekk moom moom ngay ubbee boo defee waxu saar wala aaya bu la neex sax nga def ko julli ajjuma ji lu am solo la di ko teewe ndax day wanewaat benn julli ñi waaye nag saa bu ñuy xutba bay julli yitte joo am doo wax soxla doo wax dara waaw xanaa nag ko amoon ab laaj ci fiq day loolu saa si la man daañu ko def ci Madina waaye nag xam naa fii moom aada ji xamu ko lu dul laaj sa sa diine sañuy sukkoore def to saa sama nee na koo wax ne diw da ngay fo diw noppil foo nga boo gisee am chercheur di wax doo ko noppil da nga tekk rek yow chercheur waxee gis ko tontu kon kon kon mu noppi chercheur moom moom du du wax kat daw koy tooñ rek ko kon léegi saa bu ilimaan taxawee ci minbar bi kenn duutu waxati dara sama gars yi rek danaa gis ñoom ñuy wax nangam fii génn fii fayal téléphone yi xam naa ñoom maanaam yëf yi daal leeru leeru ci ñoom te tey rek ajuma te tey la tey gis naa tey ñuy wax lu bëree bëri waaw ba ci sax Ilimaan sax du ma wax ji moom day wax.
ca waaw xam naa xam naa xam naa xam naa des na. waaw waaye nag yàqu dara de yàqu dara yàqu dara baax na waaye nun nun nun nañ gën a tënkunuñ rek ci ni ko yàlla euh, bëggee nee ñu ndax ni mu agsee ci noonu borom xam-xam yi ne ne ne démb bi bi bi naar yi kii dem naa bay bëgg a yëkkati sama loxo def nii ndeysaan
ngir bëgg koo wétali waaye ma ne kon ñi may xool ñoom it da- danañ jaxle dañ naan ah mbaadu moom kon day def nii waaye nan na ay naar dafay ñëw mu def nii maanaam kon na def nii ndax naar bi moom kenn la ñaar la ñoom ki fi rek man kenn dong la ñii nag mbooloo la ñii ñii bu ñu amee ay xel yaar ci ci ci li may def te tey ñu bari ci ñoom dañu yaakaar ne naar bi nga xam nun ku ñu ñuul xamut tëj na démb ci waxtaan bi naar yi téere ba lañ jaxal téere ba ñu ne ma daal soo ko soo ko saraawoon baat yi dina jaxal kon loolu kon ñoom gis naan sa sama téere bi xamuñu ko ñoom li fi dikk dikk mooy laaj ay laaj yu bari la laaj ci téere bi kon moom xam-xam moom yàlla koy may rek moom comme nga may nga am ko waaye du nit ku ñu rek ku weex rek danga fa lay sa yujibu sawaadul jismi safahatal fataa wa suul fahmi ci ci diwaane ne ñuul taxut a nëx comme xel daal ne bal akramul ibadi indallahi aksarum taqwa bi si way ki gën ci jaam ñi mooy ki gën a moytu tere sëñ Tuubaa leer na moom daal ne fa la sa yujibu sawaadul jismi adamum foo si benn xel bi nee na ñuul teewut a teggi ceebu dul sëñ Tuubaa dafa ñuul kukk sëriñ fi Makka yi Madina wax wax naa ko démb naar yi xasi digli sëñ Tuubaa joxoon sëriñ fi naar yi mu ne ma ko dafa ñëwoon ah mu ne kon sëñ bi kon ah da dañu jox ñoom mooy ko parce que déet ñoom ñëw fi ñëw njaareem jotaay la bu am solo bu gënoon a yaatu da- dana gën a neex nga xam ne waaw ñu gën a xam waaw léegi nag murit nga ko murit ñoom ño- ño- ñoom beneen na ci rajo bi bëgg nañ ca bañ gënee ne nañ ma laaj yu bari leer na ci noonu téere bii ci lañ xamee sëñ bi kooku xët ma la ñu ne kat mun taxaa ñang su bakki bii dem nañ dem Ndakaaru luñ fay def am ku leen xool ah waaye ñoom si ñoom yiw nañ di sax yéen fu ngeen jógee ñu ne Tuubaa ah ay waay xanaa mu ren ngeen waaw yaa di bég ndeysaan oh yow yow ambassadeur si sëñ Tuubaa nga ware nga ko ware bu jëkk dëkk bii ñu- ñu ne fi na- fexe ba jëfee leen ak ñoom ba ñaa waa fay du di ñoom ak ñoo yaru wala yéen nangam nangam naam bëri ñu coow bëri nangam loolu sàn sànni fii dara ci biti dana gis ko doon ko def wóorul am na bés sëñ boobu doon coow ca matt ma ñëw fii ta ta- ta- tàng jër waaw kon dañuy dañuy sànni jigéen ñi nangam xam nga am nañu ji am nañu jigéen ñoo xam ne jigéen ñi dañuy leeraw miir bi te loolu loolu mooy aada ju ju baax jigéen warut a aw ci digg yoon wi dafa war a leru waaw léegi nag yow boo sànnee dara fekk ko ko mu dara fa da koy gaañ bul sànni xob sànni bant bu sànni weñ demal ba ci bitti nga teg ko fa ab julit salaay salaam nee na mépp baxul mépp mooy de jël ab paaka naan nii nit di- di- wala ab biig wala wala bant di fo mu ne seytaane mën na koo féel soo ko xuree deretam tuuru mu ne deret jooju tuuru moo gën a rëy fa yàlla mab kaabam nga kon ko kon maa ngi seen tey maa ngi seen wuñ ko taxaw fii ma ne Abdoulaye Lo na na ko dindi ndax maa ngi xalaat ay waay am saa saw kii fa rek mu mu dal ci kawam fi fi ñu toll man dama dama koy dama koy génneer ba mel ne damaa laal lu tax man dama bëgg a doon mu'min gëm yàlla laa bëgg a doon ku gëm yàlla nag da ngaa war a bàyyi xel sa moroom yi jullit ñi waxuma sax ju jullit ñi maanaam maanaam am picc rek picc picc mi xar mi dama koy baaxee fi fi ñu toll nii am na fi bay amara ba piccam ma ba benn picc laalee bët ba dafa muy ñëw ma ne ko mu ne ma moo ko kii mu ne ma ah, da- dafa yàq bët bi bëgg a jooy ndax métti ci man métti na ci moom ngir ñàkk picc mi waaye man li métti mooy picc mi bët bi yàqu ca ma ne ko na- ma ne ma ne ko ko ko léegi kon jaay ma ko ma jënd picc mi joxaat ko ko. soo koy def mu ne da koy def noppal ko ci yàlla picc mi ak mën a yem di bët leer ma am ba yor bët bu bët bi lëndëmee day jaaxle may noonu sa su may ñaan yàlla may ma leeru bët su su su Abdou Diop moomu. moom moom sëñ moom sëñ nu ko waxati
sëñ Maxtaar Binte sëñ nan sëñ ah sëñ Samba Aminte si sama boominta nee nee nee na ma keroog it sëñ Abdou Xaadir dane ku bëgg leeru bët sa xool saa boo jullee tu- suba ak ti- ak timis man a waxtu yëpp la koy def jàng ñetti naa ñaari naati inna atnaka kawsar ñaari yoon ëf raay suba yi gis gis ngeen saa boo jullee dana ko def teg ci allahu nuuru samawati wal ard raay ko ci ndax sëñ sëñ sama benn bàyyi bàyyi sax bi dikk nee nee na sëñ ma sàmba nee na ku ku koy def da nga am leeru bët inaata nag ko ko sëñ moom ku ko saxoo da nga màggatali ay bët
alhamdulilah sëñ Abdou Khadir ko wax sëñ Abdou Diop ko wax Abdou Khadir ko daa kon julli nga kon waaw
yàlla ñu ko suñu boom defal ñu ñu ñu bokk ci ñi dàq julli amoon naa ab laaj ab benn ab laaj waaw ci guddi guddi tey gi Mm.
ci riñaan mi Mm.
maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi bi mu bi mu àndee ak Seydina Jibril Mm.
dafa dafa mel ne Seydina Jibril dafa da- dafa doon ab imaamam Mm.
ndax imaam googu daa continuer ba jeex wala déedéet waaw si si si nag Jibril bi mu àndee ak moom ba ca pays yu yu kawe ya dane ko man kat fii laa mën a yem su su ma doxetee siqatee ab jéego lakk ni ni ni ni ni kawar di lakk ci ci sawara raf-raful ala daal di wéy raf-raf di di di di xuus ci déer yi ba mujj mu ne ko may su ma siqab jéego damay mel ne kawar gu lakk ci sawara fii fii laa mën a yem su boobu nag woo ko nag léegi taxiyaatu yi nag pare tàmbali léegi yàlla da ko fonko am na sax ñu ne sallallahu alayhi wasallam bi nekk ci biir jéeli yooyu di xo- di xotti moom képp la ak boroom xaw naa mel ne ku wéet su boroom daal di koy indil ka kaddu kaddu si seen Abubakar si tudde parce que mu daal ne su boroom ah Abubakar daa agsi daa agsi fii ya mu ne ko mu ne ko agsi wu fi de agsi wu fi sa sa sallallahu alayhi wasallam kon euh, maanaam si seen Jibril du imaamam booba waaye moo koy bijjanti di ko wétali leer na waaw leer na Kon- xanaa kay may may ñaan may may may may- may laaj bi bi bi- bi ci des
baa luñ mën a wax la waaw ci ci ci ci ci reñaan mi la rek ci Mm.
ci ci ci reñaan mi la bi Mm.
bi mu bi nga ne daa romb ñi taxaw Mm.
euh, taxaw diir bu yàgg ak ñi ñi ñi- ñi Waaw.
mel ne lu lu lu taxaw ñi su mel jóot ne luy sëgg waaw ñu ko ñu su jóot ñu ñu taaya léegi lo- loolu noonu nga xam ne moom la ñu booleel ci génn julli génn julli gi.
génn julli gi Mm.
nga xam ne ku ku- nga ne ku julli julli googu am na yool Yool yooyu yëpp.
juróom- juróom julli yëpp am na.
ok loolu laa doon leer bismillahi rahmaani rahim sëñ bi ne nee na it ci si guddi waahir saa si la ma bi mu ne bi muy wër noonu ci biir xadara yi da da koo romb xam ne nga nga xam ne bi- miim yi bismi miim arrahmaani miim nga rahiimi miim nga ay bëti ndox la bii lem la bii soow la bii sàngara booba daa daa gis dex yooyu mu laaj Jibril lu mu doon mu ne mu mu ne ko lii lii de mi mi ngi mi ngi ballaloo ci miim yooyu lé- léegi nag képp koo xam ne da nga koo saxoo bu ëllëgee ci dex yooyu ci ci ci ngay naan bismillahi rahmaani rahim moo tax Sëriñ Tuubaa daawul teg wala mu jël dara te waxul bismillahi kon di ko sax wér rek wér mooy di ko wayantoo soo ko soo ko saxoo noonu su su ëllëgee ci miimam yooyee ci ci ngay naan
alhamdulilah barkal ah barkal ah yal na yàlla yal na yàlla s- sàmm la amin amin amin sàmm ñu sàmm ñu yàlla ñu yàlla sàmm waaw amin te te àggale say naal amin amin yëpp rek tañ waaw tañ ànd ko ak yow Amiin, ci amiin.
barke guddi gi amin amin ak lu matut ci ñaan gi rek Eh, yàlla xam na ko yàlla nañ ko mottali waaw waaw waaw waaw waay ma ñaan ci barke bë- bëyit woowee ma doon wax du du du- dama koy wax dama koy yaloo ñaan ca ba- ñaan- ñaan ca ba- ca ca barke bëyit woowee
fasal ñu ci rek suñu xool yi fees dell ak liimaan rek amin xam naa li mu ciy dool mooy amin dana tax tax magale jóg waaw na aywa loolu nga bëgg a wax waaw na fees dell ak liimaan waaw suñu suñu xol suñu suñu xel yi amin leer te wér amin waaw te mucc ci ayib amiin amin amin amin li mu bismillah li mu bëgg a wax mooy Mm.
waa faydu bépp Mm.
nañ bokk lépp si kuut si kuut loolu boobu boobu laa fas dëgg sax alhamdulilah waaw ak ak soppee ñëpp seen mbir yiwén yiwén goo xam ne amiin
kooku da doon jàmbat ak eh, sëñ boobu doon jàmbat waaw.
lañ ko bëtoon tabaxaloog ak sëñ ba nekk nekk nekk eh, Dubai moom it liggéey bu ñàkk solo bu boo xam ne liggéey bu mu bu mu demoon ba xam ne nekkate ay nax la mu génn ja ci pas-pas Mm.
ak ñëpp rek Amiin.
waaw jëwriñ yi nga xam ne ñoom it eh, ñoo jëwriñ yi soo sunu moom dëgëral ñëpp rek ma xam ne ke- ke- kenn kenn ku ne daal kenn ku ne daal ci cunnuñ jotaay beeg ñu ñu ko fekkiwut so soppe yi kenn ku ne am nga am nga soxla amiin su su la yitteel amiin soosa sunu moom faj ko léegi rek ami faj goo goo xamante ne dana doon kiimtaan ci yow amiin ak ñi xamoon ne soxla nga ko amiin yaa rabbal aalamiin. آمين يا رب اللهم آمين آمين آمين آمين آمين آمين
non suñu sato ba jina اللهم tarab ci xadim yaa wal mati yaqulu ko kun xadi ko آمين xadim ci xamul mu mu taxay yàlla ko fi yàlla آمين yàggal gën a fëgg bopp ba gën koo wéral moom kattanam آمين ak ak- ak képp kuy liggéeyal lislaam آمين xulafaa yi nekk ci bopp yoon yëpp rek آمين te yàlla aaral ñu ñu réew mi nag aar ko Amiin.
baru tàkk mukk mukk mukk mukk mukk آمين yàlla na jàmm rek di di di di- di xew yàlla na yàlla leeral Amiin.
xel yi ñi koy xëccoo ba Amiin.
ba kenn ku nekk di- di- sa xel dikkaat nga xam ne réew mi moomu ko réewum yàlla آمين آمين